bu amee doole taxaw ñu koy wax dugal ci oto bi muy bañ euh, muy coowanteex ay gendarme euh, kooku mënuñu mënuñu xam mënuñu considérer que boobu à ce moment là am na pancréatite surtout pancréatite aiguë ah pancréatite vraiment feebar la boo xam ne doo mën a dox benn soxla doo mën taas ko war a nekk en réanimation ñu jël la voilà kooku daal euh, mën dem laaj leen si médecin bu leen neex wala scientifique bu leen neex wala gastro entérologue bu leen neex. Euh, pancréate mënul rey ni nit ku doon dox soxlam ni en dix minutes. ça fait trente six ans ma ngi exercé gël na gëj na xol libre bobu sax mais sama première leçon bi ma ci def ya trente six ans ba léegi mon ko fàtte tellement pancréatite ni mu grave dans les urgences aussi dañ ci gis cas yu bari yu ñëw dans les urgences. hein pancréatite aiguë pancréate ben organe la bu nekk ci sa ci biir estomac sa biir que biir mo nekk ci ginnaaw estomac bi ak foie bi bonjour monsieur euh, day participer à la digestion waaw moom dafa yor ay ben produit d'abord bu ñu tuddee insuline ah diabétique en général day fekk sa pancréas am problème amono am insuline amna benen produit nak bu gëna dangereux bu chimique bu ñuy amylase amylase ben produit bu mel nu acide la lépp loo lekk sa yaram moom moo koy jël euh, daal di ko seeyal pour que vitamine yi wala nutriments yi mën dem ci sa corps. donc benn produit presque bu toxique la boo xam ne moo nekk ci pancréas bi bu tesee sa yaram day mel lu kuy lekk sa yeneen organes yi ce qui fait da ngay nekk ci benn douleur boo xam ne euh, mënuma la ko wax sax voilà bu euh, enzyme boobu nag tam bu nekkee ci sa yaram aussi day naan sa ndoxu yaram yëpp ce qui fait da ngay nekk en état de choc en état de choc donc ci réanimation ngay nekk ñu di la jox ay calmants yu nekk morphine ñu di la pour rattraper ndox bi génn ci yow bon ko am euh, euh, vraiment pancréatite mono jogi sa kër à trois kilomètres di doxantu ba ñu jàppale nga fulo ak ay gendarme bi ñu dugal ci oto euh, nga déwé noonu d'une pancréatite kooku mom vraiment nañu dimbali ñu xoolaat benen diagnostic tegoo ma né ah médecin buy def lolu de man euh tay la koy mësa a gis médecin buy bind que am nit ki danoon xuloo ñu jappako mu déwé deewee pancréatite aiguë hémorragique hémorragique bobu tamit lañu mëna xol hmm, est-ce que c'est les enzymes qui ont fait l'hémorragie wala <laughs> est-ce que leneen moo andi morage bi parce que morage hémorragie moom fu moom de te biopsie autopsie tamit dañ koy buñ koy bind rek dañuy bind bëree rek moom day déjà xel day teel mais euh, normalement compte rendu autopsie da ngay jóge ci bopp ba ci tànk yi nga def ay rajo hein, nga def ay prélèvement hmm, voilà kay soo ko wax ne kii ah, mais mu ngi noonu daal en tout cas euh, kii boobu daal dinañ ko contesté ah, xaw ma nag léegi du ñu mën a def autopsie malheureusement

Ah, la justice son rôle c'est de trouver la vérité Je bi déjà document avec rek buñ euh, ko l'autopsie, c'est très sérieux L'autopsie du këyit vous mel noonu lañ koy il parle plus de genre de mort que d'autopsie bon en préalable notre famille bi wax que nañ proposer que police scientifique nous un rapport ah, Maintenant, on insiste, insisté leen insister leen euh, hôpital d'un médecin légiste euh, def liguey bi mais kayit bi ñu joxe rek sur une mort euh, autopsie d'une personne morte de façon vraiment euh, on se pose des questions kayit boobu rek déjà tey na xel d'accord maintenant ben autopsie normale buñ ko def tey commencé bop autopsie c'est nga yor ce ngeen baal ma sax terme yoy da nga yor ce ciseau ak ce qui ngay ubi nit ki à gauche à droite ci kaw ba ci suuf Hein? nga def ay rajo hein? nga def ay prélèvement hein? surtout que euh, pancréatite amna na produit bu ñu tudde amylase amylase bobu moy wax na moy moy ki koku mën nga retrouver dans le sang même de quelqu'un qui est mort ah amylase bobu moo lay wax ni am nga pancréatite wala amuloo pancréatite d'accord donc euh, te vraiment euh, li tax ñu gëna a douter ci diagnostic bi moy ku doon dox sa soxla bay xuloo ak ay gendarme bañ la force ngay dugg ci auto euh, koku biñ koy arrêté amul amul won pancréatite biñ koy arrêté amul won pancréatite aiguë pancréatite aiguë tamit doo ko amee nii pancréatite aiguë bi en général c'est chez les alcooliques chroniques loo xam ne bu yàggee bi alcool bi jàppaleen wala koo xam ne dañ ko jox benn personne boo xam ne c'est dangereux pour le pancréas euh, sinon c'est le cancer cancer nag ak pancréatite aiguë c'est pas la même chose ah parce que ba ben, pancréatite bu ma ne la waxee nii y a quelque temps 100 pour cent de gens ñoo doon dee buñ ko feebaree même boo nekkee hôpital tant yi lañ a ay progrès peut être ñu ngi sauver 50% de la population ñi quoi. donc c'est une maladie vraiment trop sérieuse trop sérieuse et trop grave euh, sur quelqu'un qui doon dox soxlam ñu ne la euh, da nga jàppante daanu euh, bon les léeg sax crise cardiaque sax ñu mën comprendre. comprendre crise cardiaque moom mën na gaaw nii fekk yëguloo ko mais pancréas daf day waaj ah day waaj soit on jël ay garab plus dangereux soit nga nekk alcoolique soit Ok, mais ni mon vraiment Ah, xaw ma xool leen yeneen médecin ngeen laaj leen ndax pancréatite aiguë mën na am nii en dix minutes ci kenn ku doon dox soxlam ba nga dee ci kooku moom question boobu daal moom doy na waar.